parce que c'est un ensemble benn nit moom mën a defar parce que leader yi ñooy ni problème bi ne ñoom ñoo naan mën nañ defar population dem toog seetaan leen mais yéen population bi pour que ñu liggéey ensemble parce que bés bi si tey man Mouhamed Bilal Diatta yéen yéen sama patron man maa seen mbindaan man maay mbindaanu commune bi dama war a samay patron la yéen a ma liggéey loolu yéen a ma fal parce que souvent le pouvoir rend fou te bu ñu comprendre ni ñu naan kaay fotaw ñu gis suñu bopp dañuy gis nga li gëna a grave mooy faux départ on n'a pris droit à l'erreur et vous aussi vous n'avez plus droit à l'erreur parce que ñun li xaar muy coalition Yewwi Askan Wi en 2024 dañ ko war a jox réew mi te bu départ bi fauché wo kuñ fi laaj baat ngay bañ. kon ngeen baal ma ngeen yërëm ma te yàlla ma ñaan ko ñëpp amatuma force bu doy communiquer parce que ay ay semaine nelawuñu ay jour nelawuñu mais dañuy gën a mu ngi gën a met suñu te baaxul suñu après suma mag Babacar je pense que ni moom comprendre na ndaxte njaboot la je pense que ni comprendre na parce que tey ñi mu sekkal commune bi ay collaborateur am lañ mais ay nawlam lañ C'est pense comprendre na ko massivement voté ko Sénégal yëpp massivement xam na ni du moom jëmmam ji du man sama jëmm ji Adama Sarr mais coalition nous Askan bi moo ni toll bu ñu gis suñu bopp duñ ci dara duñu ci dara li am solo nag mooy yéen ñëpp ngeen def serment seen bir xol ngeen wax ni dootu leen sànn ci mbedd ngeen def serment seen xol ginnaaw ne dootu tuur ndox ci mbedd man waat naa def sama serment ci kàddu yàlla subhaanahu wa taala bu sell bi dinaa góorgóorlu ba def ay poubelle yu doy góor góorgóorlu ba defal ay toilettes publiques kon ñu nag yéen la équipe lañ ñun bu ñu defaree yéen gën a yàq dara du sotti kon nag kenn ku nekk dimbali moroomam ci defar bi Babacar confiance ma la joxoon avant jox la ko tey moom laa lay joxoon suba yar bu ma gisoon si yow démb gis ko yow tey moom laa xam ne suba Babacar mission bi yombul mission bi yombul ay gor bu leen dénkee ndax seen kilifa wala ñoo mën a fexe ba ñëpp ni 2024. da lay wootalaat yeewu askan bi ndax ñii ay liggéeykat lañ man def naa ko sànq sama déclaration man de wax naa ni sama salaire maire may am man ci commune bi man mayaat naa Kër Massar surtout bu ñu tabaxee ko hôpitaux pour ñu mën a def maanaam plateau médical bu doy cinq ans fi toog cinq ans yëpp ko jox banque bu leen neex jël xaalis jox ñu ko ñu tabax Kër Massar sur hôpital loolu man volontaire naa ci loolu am na partenaires yi may woo yàgg nañu ak man incha allah pare nañ ko dimbali Kër Massar surtout mais Kër Massar département aussi duñ bàyyi duñ ko seetaan parce que ki ñu am comme candidat mu nekk fa nekk monsieur le maire ah di Babacar Gueye nga xamee que ci conseil départemental maa ngi leen di rassurer ni le Kër Massar yi Massar waaye yëpp ñu alhamdulilah alamin maa ngi leen di rassureel ni code pire a ngi di toog maa leen di rassureel ni ku am éthique am moral am déontologie mën nga ñuy toog damay am maal nag di ci nit ci toogee parce que mënu ma ko nag dama koy jaay parce que man dama ba gàllu kuréel moom gën a gàllu ci waaye may sant sama waajur bi toll di Babacar Faye